ñu wooye la ab jullit soo ca bàyyee benn jël moroom ja jullit yi nag sañ nañoo maandu ci yow mooy ponk bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bis bu ruux ak nit ki waddee ba nit ñi ñàkk ko moom la yàlla jëkk a seet ci ay biram loolu nag bokk yi doonatut ay caaxaan doonatut ay kaf kenn ku ne si ñun gis na ba tey kuñ tëral ne dafa faatu loolu kenn waranteetu ko loolu ki gëm yàlla ki gëmul yàlla ñépp gëm nañ ne dee mi ngi ñëw te day am la yàlla jëkk seet nag gannaaw faatu jullit bi ba jullit bi dund lu mu war a fonk la ndax yonent bi nee na suñ ko seetee mu jag lépp ay jag ndax yeneen ya jëralu leen seet bokk yi ponk boobu yent yi mu bokkal ñoom ñuy juróom ñu yenu lislaam bu ca waay di def daf koy boole ak moom ku ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah day daal taxaw fi kanamam ne ko ay ca bokk tàmbali léegi bokk yi kuy aj makka da koy boole ak ponk boobu kuy woor daf koy boole ak ponk boobu kuy liggéey fas yéene bu amee nisaab di génn asaka it ngir matal ponk yépp daf koy boole ak ponk boobu mën na ko tudd mën na ko ba a tudd ñépp a ko xam muy julli julli moomu suñu boroom nee na ci alxuraan na ngeen ko saxal ñu ne ko xanaa weer wu nekk wala bis bu wala at mu jot ni woor ak aj ak asaka mu ne déedéet bis bis bu ñëw daf caa am ay waxtu yoo xam ne moo ko moom lu way di def bu jotee na ko bàyyi defi ak lu mën a nekk ban gannaaw nak bis bi muy gudd ak bëccëg dana ci ñëw nangami yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am njàngaleem leer na foofu nañ lu nit kiy def giirug dundam bis bu set ci guddi gi ak bëccëg bi def ko ci ba mat juróomi yoon su ko jékkuwut na mu ko war a yeneen yi des ñëw par at taxut ñuy wax julli moomu nag am na ca yaar yu jafe lool yoo xam ne fa muy fekk nit ki mooy waral mu mel ni lu jafe tey dañu cay tànn genn ga muy julli fajar bokk yi julli fajar am na ñooñ tayal moo leen def ca waxtoom am na ñooñ nelaw moo koy te def ca waxtoom ngir daw seytaane ak ay jax-jaxalam jax-jax jax jax shaytan mo koy def ca lay bok ca lay bok ba tax waji nak wat di nelaw du yaw ba julli fajar wessu wala ñuy noddu mu degg ko ne pat wat lam sàngoo woon feddiliwaat mbankaayam su fekkee koy nelaw di banku la wala mu feddi wat wet gëm tëddee woon wëlbatiku tëddee geneen wet nan waxtu yu gudduna wala des na te bu dee ci dëkk yu mag yi dëkk bii ñu nekk bokk ci nodd gi yëgle ne waxtu wi jot na ak fa ñuy jullee dana mat waxtu ak dara dinañ dëkk def lu ñuy wax nodd gu jëkk ba mu mat waxtu ñu soog a nodd nodd gi nga xam ne ca la ñuy waxee ne julli jot na julli googu sax dañ ciy boole ne bàyyi leen li ngeen def te julli ci li lu ngeen mën a nekk julli jee ko gën asalaatu xayru min an nawm moo tax jullit bi saa bu waxtu jotee ba mu dégg nodd war naa wax auzu billahi min sheytaani rajim ay yoon balaa koo seytaanee gàllankoor ci muy dem di julli ci léeg-léeg mu ne ko àggaleel li ngay def léeg-léeg mu ne ko ginnaaw diw julleegu tey ngaa xaar ba muy julli te xamu diw dina julli wala du julli léeg-léeg mu ne ko ah waxtu bi de gudd na léeg-léeg mu ne ko kii daa teel nodd rek waaye nodd jotagul te bokk yi waxtu yi waxtu yi ñuy noddu saa su ne mën nay soppi moo tax am na ay joxañ yu waroom xam-xam yi joxañ yoo xam ne nee nañ ku koy def yàlla mën na koo musal ci ku ca sonne ku sonne yépp wala mu jàpp ca benn sen sonne ca yàlla mën na ko musal ci biddanti bañ a julli suba fàttali nañ ko fi ay yoon bokki yi xool leen kii nodd na dugg jëkk fa muy jóge léeg-léeg xool leen kiy salaatu fa muy jóge lekk léeg xoolal ñay jiite julli fa ñuy jóge léeg xool leen kay ubbi jumaa jama nga xam ne noddu jiite wut waaye day ubbi ji rek ubbil ñi nga xam ne ñooy noddu ak a jiite loolu kum dawut aw yaramam yaramam du daw mukk ci àdduna di wax ca kaw ñëpp ñëpp ne tekk muy wax ca kaw te am nañu seenum néeg bu mbooloo mi raxee sax dutuñu wax ñoom far dañuy waxal moom mu ngalli ko ca kaw waaye du ko rëccu nag joxagne yi joxagne bokku na ca di teel teud di teud bi sallallahu alayhi wa sallam lek lek dana néeg ba guddigi boko xajé ko ñetti xaj xaj bu jëk ba bu bi bëgg jeex mu sago a julli gee day bañ ku nelaw digënté fi jant bi sowé ak ba ba julli ge manam moy jul timis di nek ge lam ca jublu woon moo ko xam am nañu ko taawil ne mooy day bëgg boo sëlmalee gee rek gëmmentu dem tëdd ndax ka teel a waaye li xew mooy julli gee googu dañuy toog ci xadaraat yi xadara lañ ko tudde léegi foo xam ne duñ fa waxtaane yàlla duñ fa waxtaane yonent bi duñu fa waxtaane sëriñ bi lañ fay waxtaane mooy xew-xewi jamono ji rek boole ko yu tàng ya di di ñëw yu sedd di ñëw ndaw wéréd yi metti ba kenn desitu fa daanaka ñenn ñi nelaw nañ fañ toogoon ñenn ñi ne maa ngi tëri ñenn ñi mu soog a jóg kooku faaw mu biddanti kon teel a tëdd benn la ci tomb yi nga xam ne dana musal nit ci bañ a julli suba ci waxtoom moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it daan daana bañ lool waxtu woowu mu jullee gee ba noppi ku fa toog de waxati daa bëgg ku noppi rek dama fatu ci am na ñooñu nag jàmbaar lañ dañuy nelaw dañu naan baasin yàlla ñu ne gàmm newaat foog jot di julli di sëlmal jëmale julli suba wala fajar am na ci ñooñ duñ nelaw xawma duñ yeewu li feeg dégguñu na dugg jëkk daal di jóg gaaw am nañoo nit salaatoo leen di yee waaye duñ nelawaat faw ñu julli doon tëddal bu ñu dee tëdd ku ci nekk jàmbaar waaye ki nga xam ne daal moom war naa seetaat boppam mooy koo xam ne dana watt watt moom boo ko déggee mooy tëdde ndëfe kooku moom yëgatul li xew taa xam sax mën naa daanu ci kawam te du ko yëg du dégg noonu du dégg salaatu te lekk ko teg mooy topp xadaraat yi di barkeelu di tibbu di sex di naan yu tàng ak yu set ñaareel ba mooy fexe ba tuxale ci woroom xam-xam julli fajar la ca nekk ci ab yool julli moom dawuñ ci digge dara ndax day gar ci diggante jàmbi ak boromam wa ma xalaqul jinna wal ins illa li yaabudun waye nak la tax ñu tan ci naan dana ci am nangam dana ci am nangam moy waxtu wami bayyi lam doon def muy nelaw dem julli ci ko lolu it lu ma tax xam lu ji la ba xam yole ya ci nek lu doon su xame yole ya ci nek nak ba nopi ko fu ñuk dem di ci jaamu ji yàlla te rek tax ñettal ba moy di andak ñuy hadra hadra bu am njariñ hadra bo xamne dañ fay fitante ay masalah hadra bo xamne dañ fay waxtane ayat alquran sababu nuzuli ak ci kan la wàccoon lutax mu wacc ak ci kan ak lu xewon ak ayaat yi ban ak ban ci niro ak morom ja loola moroon am ci daa ëtti dara ya bu njëkk bindal ba sangam mu bind ko munako mas ko munako ko mu la wala dangam ba sangam ñaata ñaata yon la ñew ci alquran benn bu ci ne fu mu nekk gumaara lay nekk mën na ma bañ dugg sax ci tafasil waaye daal dañ ko leen fitanti ba ku nekk óbbali wóbbali bokk wéeru fa mu wéeru ndax du bëgg a dem bàyyi fa jataay bi ndax neex gu neex ci moom ndax di dul ak ruuxam ñooñu moom ku ne xam na ni waxaale wuñ leen ci ñi nga xam ne dinaan wàtt nelaw ba salaatu xëyru asalaatu xëyru mi noonu mi weesu ba jant bi ne dàng nga xam ne tàngoor jant bi moo leen di yee tàngooru jant bi nag ku moytuwul mu du ko yee bu ëllëgee dana la mos aw tàngoor woo xam ne muy gën a tàng jant bi fuuf kon fexe ba di ànd ak ñoo xam ne léeg leen ñu waxtaane kenn ku ci nekk waxtu wa mu yeew ci teel su fa dee toog toogee léegi tey mu xeemeem ko ni ñoom am na ñooñ dañ naan ñoom fu ñeenti waxtu jotee ñu jóg am ñoo xam ne nag ñetti waxtu genn wàll am ñoo xam ne naan juróomi waxtu suy toog seen jotaay nag léegi tey mu tàggoo ak biddanti ba ñu julli suba waaye it euh, fexe ba bu amee randiw la koy yee ba muy teel a jug waaye waaye mu la ca waxtu julli bi waxtu nodd bi am na ñoo xam ne dañuy wuti visa jaral na leen dem fanaane fa ndax teel a déposé xamuñ danañ am xamuñ duñ am waaye la ko jaroon mooy teel a jatu di nekk waxtu bi ndax waxtu bi moom ku ko nekk xam na lam say am lam say am mooy jëfe ndigalul yàlla te yàlla du neenal kenn ñii wax naan barab sàngam boo fa déposé suñ la moytu dañuy yóbbaale sa xaalis danañ ko jaral rek ndax danañ ci bind ne kuñ joxutit la ngay joxe woon da nga koy ñàkk mu jaral leen ko fanaan fa te foofa fi ñu julli suba du fa nekk ñaar waaye faale julli suba gi faale julli gee dañuy dem ndax teel a gaaw te teel a déposé loolu nag bokk yi ci ab jullit ku koy def war naa mën a baal xel diir bu gàtt boo xam ne ca lay dem jàpp ñëw julli ñaar rakkay fajar dem ca tekk julli fa ñaar rakkay suba su fekkee jàkka gi sori ba ñi wu faa dem ku mën a yee mu yee la su munta yee kenn moom mu fexe ba loola bañ koo waa bañ koo faat moom ndax kat euh, kenn ku nekk bu tibbee di sax ci gémmiñam lay def mën nga tibbal ni sax def ci gémmiñam waaye bu bu wanaasu gisee nag wanaasu boroom kon waxtu wu jafe la waaye bokk yi bi ma tudd bi may mujj bi may mujjee mooy bi ma jëkke woon léegi rek dana tax nit di gëm nit di biddanti bokk na ci yi tax nit du biddanti mooy fexe ba la muy lekk ci guddi gi bañ a ba ëpp ndax kat bu biir nee dell bët moom daal di fas yéene gëm moom reere lu woyaf ba noppi di ca lekk lu yam lek ba sour ta baña lek ba regg regg mom wobuli wéri wet ga ndax dana tay la jóg sa xor top tay yoon kon kenn ku nek na fexé ba tam julli julluk suma bokku na ca ya ko koy may mu tam ko nak moy fu tisbar joté rek buñ noddee rek dutu am jàmmatu julliwut fu sa joté dutu am julli wut fu timis jotté dutu am jàmm julli wul fu gey jotté dutu am jàmm julli wul su boba yent yi su demee ba jaxassok deretam ba jaxassok mom sa bu ak nodd kenn du ko yee moo naan wala ba mu jëfëndiko yi bees yi xew léegi junj na ko légui moy néew nañu yuru téléphone yi ñi ngàbb dem fu la di wax di wuyu di wowata bo ci gis amna montage montar bobé ci bir téléphone ba amna na fu ñu naan boo bëggee wax sangam boko ci défé mu yéla soy nalaw ak boy yeewoo ci yam so nalawé dana ko dana soné so nelawut dana soné lolou nak mën na dégg ne dogalub yalla bi bi dab nit diko faat muy faatu waxtu jotté day dik montre bi nga réglé mu di yé 4h du matin ñenti waxtu ci suba fajar soy yew ak soy yewul la sa bu ñent waxtu jotee mom dana soné mom mo dogal yalla nopi na ca kon bok nañ taxaw ci ndigal suñu borom te xaar dogal ba té ñaan sa bu ñew fekk ñu ci lam la ko gënal li tax bokk yi julli mata sonne Amna sababu sahir léeg nit ku yor ay tankam yor ay yoxom ba yag dutu ko yor da fekk mi ngi dund kon jamana ba mi meuna japp ñap mu set nga xam ay yoxo ca la bok na fexé ba jëf ci cër yooyee japp momé ak liq ak taxawal ak rukoo ak sujud ak juk ay yoxo da cey bok waye jamana bi am ya ñaari tankamit na fexé ba tank yooyee mu tam ca jàpp ca taxaw di julli ba mën a ba mën sukk ba sigwat ndax man na dab nit ñu dag ab tankam wala ñaari tankam su boobaa su ko sa néewutoon day gis ni gaa yi def mu bëgg def te dutu ko man la weesu weesu la jamono bi muy am ay gët mën a xool waxtu ba xam fajar jot nam jotut mën a xool ba xam tekkusaan tusubaar ba waxtu yi yi ñuy seet yëpp di jot di ko xool ci montre di gis di ko xool ci téléphone di gis na fexe ba gëtam yooyu mu tàmmal ci xool waxtu tàmmal ko xool alquran tàmmal ko xool eh, turi yàlla yi ak salawatu ala nabi su boba su demé ba amam ndogit rëcc mo du bari dana fekk mokal lu bari te fekk gisot da ko yoon xool waaye su demé ba nga xamné ne it fii ci ruko yépp da bañ wóom ya bañ na ndig la bañ na penk ya bañ muntu ta bank muntu ta talalit jamono bi mu koy man na gaaw fexé ba sonne ndigal suñu borom bala mo wessu yalla ñu yalla defal dégg ak top te musul seytaane mi ko jax-jaxalam te boole ñu bañ nangoo julli saa su nañu fàttaliku mag laajoon na kenn ku doon sàkku xam-xam ci majaalis yi nekk Tuubaa laaj ko fànn yam yamiy jàng mu wax ko ne fiq moom jekku na ko lool mu ne ko fiq boo ci gën a jekku mu ne ko julli mu ne ko waxal ma dégg di ko laaj muy tontu di ko laaj muy tontu li may wax rek ci xadaraat yi nga xam ne daa am njëriñ kooka la mu koy mag mag suñu Fallu Mbakke la woon la mag mag kooka nga xam te magandiwut ak waajuram sax teewul mu jël waxtoom ci xam ba xam kii mi ngi xam li may jàng waaw wala déet xadara ba daa jëm ci lool ko waaw xam nga julli de xam julli nag nangoo jullee ko gën yooyu ku boole dana lare lare nag wolof yi nit ku ñuul nee na du mën a jàmm njanaaw yaa na toogee rek yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'il muslimina amin